الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلوات الله وتسليماته الأتمان الأكملان على أحب خلقه إليه مولانا محمد rasulillahi wa ala alihi wa ashaabihi wa man waalaahu radiyallahu an as-sahaabati wa taabi'iin wa man tabi'ahum bil hudaa wal yaqiini ilaa yawmi ddiin wa ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullah danaa bu ñu sante buur bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne ahlu sanaa'i wal hamdi wal majdi moom moo yeeyoo cant di ko ñaan mu wutuñ ci luñ ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboolemi saxaabaam ak ñu topp njubam ba bés penc ñi nga mbokk jullit yëpp asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu nekkoon ci téere bu barkeel bi ñuy wax jawahirul maani wa buluugul amaani min faydi abil abbaas tijaani doon téere boo xam ne Seydi Ali Harazim Barrad al-Fasi fa tabarakallahu moo ko dajale ci jaar-jaaru suñu sëriñ ak jàngaleem ak xam-xamam muy Seydi Cheikh Ahmed Tiyaani euh, toll woon ci ayat yi nga xam ne sëriñ bi ci xam-xam bu bari doon nañu ko tawilal di ñu ko firil pour man mën koo jariñoo yàlla ñu ko yàlla fayal dars tey bi mooy wa saaltuhu radiyallahu anhu an maana qawlihi taala inna aradna al amaanata ala alsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha al aya surat al ahzab fa ajaaba radiyallahu anhu bima nasuhu قال الأمانة هي القيام بحقوق مرتبة الحق في كلية معانيها خلقية وإلهية فلم تطق حمل هذه الأمانة السماوات والأرض وأشفقن منها وحملها الإنسان وهو الإنسان الكامل الذي يحفظ الله به نظام الوجود وبه يرحم جميع الوجود wa bihi salaahu jamii alwujud jamii alwujudi wa huwa xayaatu jamii alwujudi wa bihi qiyaamu jamii alwujudi walaw zaala an alwujudi tarfata aynin waaxidatin la saara alwujudu kulluhu cadaman fi asraaci min tarfati alayn wa huwa almucabbaru canhu bilisaani alcaamati qutbu alaqtaabi walgawsu aljaamic wa maana qawlihi waluman jahulan yaani bi taxattihi xudud albashariyati wa xudud alxalqiyati wa xurujuhi ila alqiyaami bi xuquqi martabati alxaqi xaytu laa ayna wala kayfa wala suurata wala xadda fa inna hada la qudrata li axadin alayhi illa allahu waxdahu فهذا معنى ظلمه لكونه تخطى مرتبة البشرية من الخلقية وهو لا يقدر لأن الأمر الذي الذي تخطى إليه لا غاية له ولا نهاية لكون الإحاطة مستحيلة فيه قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما فهذا معنى الجهل wa zulmu alladi nusiba ilayhi huwa ala maratibi istifaa'i alxaqi li abdihi waljahlu alladi nusiba ilayhi huwa nafyu lixaatati bi kulli jalaalihi bi kunhi jalaalihi fa dalika gaayatu almacrifati billah fa inna ma fa inna macrifatahu billahi min waraai xutuuti addawaa'iri kulliha yani dawaa'ir alsidiqiyati wa hiya kullu macrifatin lissiddiqin anna kulla macrifatin lissiddiqin falaha daa'iratun tantabiqu tantabiqu alayha wa tilka addawaa'iru wa tilka addaa'iratu hiya xadduha wa gaayatuha la tataxattaaha wal insaanu alkaamilu taxattaa jamiica addawaa'iri wa wasala min almacrifati billah ilaa xaysu laa ixaatata bi kunihi jalaalihi ولا حد ولا كيف ولا أين ولا رسم ولا دائرة وهو يجول في هذا البحر الذي لا حد له ولو أن جميع الموجودات أمدت من هذا البحر مثقال حبة أو حبأة هبأة لتهدم الوجود بأسرها وصار محض العدم في أقل من طرفة عين لاحتراقه من هيبة الجلال فليس يطيق القيام في هذه المرتبة wa ictaa wa ictaa jamii tajalliyaatihi jamii tajalliyaatiha xaqaha illa alfardu aljaamiu almucabbaru canhu bilisaani alcaamati biqutbi alaqtaab walaw jamacat cibaadata jamici alcaalamiina ma ada almalaaika wannabiyiina walmursaliin walsaxaaba wa jamacta tilka alcibaadata kullaha min manshai alcaalami ila annafxi fi ssuur ma caadalat min cibaadati qutubi al-aqtaabi fi hadihi al-martaba miqdaara tarfata caynin min cumrihi intaha min imlaa'ihi calayna radiyallahu anhu min xifdihi wa lafdihi Mawlana Seydi Ali Harazim radiyallahu anhu nee na dama laaj Seexna Tijaani aaya bi nekk ci jeexitalu suuratu Ahzaab yàlla dafa wax ne inna aradna al amaanata dama bind kóolute ulamaaw tafsir yi nag werante nañ amaana bi mooy lan waaye amaana ñii ne nañ mooy alquran ñii nee nañ mooy tawxid ñii ne nañ mooy xilaafatullahi fil ardi muy wuutu yàlla ci kaw suuf donte yàlla bind lépp waaye bu mu ci mën a doon ba ko yàlla jëlee teg ko te mooy kan moo may représenté ci kaw suuf wala kan moo may représenté bi jamii axlaaq yi nee na ma proposé asamaan dafa tiit ba daw moom asamaan ne yow yàlla sa màggaay ni mu toll ak sa grandeur kam kan moo am fitu di yenu sab yen attanuma ko jéemuma ko te xoolal ni asamaan rëy àlla bu kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll yàlla ne na wal yi ma proposé ko suuf pour ñu yenul ma ko suuf xoolal juróom-ñaari suuf la ak li muy ngand ngand li muy bari bari suuf daw ne mukk attanuma ko yàlla loolu moom sañuma ko sax yàlla ne kon naa proposé montagne yi montagne yi nga xam ne nii boo ne woon montagne yi ci at benn montagne rek boo ko bëggoon euh, wàcc ci suuf dem uti ji marto di nga dóor dóor ba daanu dee yow mais montagne bi du fel ndax dëgër gi mu dëgër ak yaatu gi mu yaatu xoolal kon montagne ni mu la ëppee mais moom bi ko yàlla ne ndax ma dénk la amaana bi dafa daw ba seey ñu ne yàlla lu tax mu ne wa ashfaqna minha dañ koo ragal foofu nag yàlla di lijjanti asamaan naan kaan yow doo yenu suuf doo yenu montagne yi doo yenu ñu jekki-jekki rek benn Moodu Njaay taxaw fële benn nit nit rek ñëw naa yàlla eh yàlla eh man la man la man la yàlla nekk ci lan mu ne àttanaa ko xam ni kii dëgër na fit nit daal tëbe fële rek ca làng ja ne yàlla man attan naa ko yen ma ko yow loo xam ne asamaan attanu ko daw ne dafa diis suuf si daw ne dafa diis montagne yi daw law anzalna hadha alquran ala jabalin la raytu xaashian mutasaddian min xashiyatillah ñu jekki-jekki rek benn waa ji Njaay muy nit Njaay taxaw fële rek ñe yàlla man la man la man la yen ma ko yàlla nekk ak ni nga tuutee nii mu ne waaw yen ma ko rek yow yen ma ko mais yàlla dafa def appréciation ci nit ne innahu nit kaana zaluman tooñkat bu mag la jahulan ku réer la maanaam dafa mel ni yàlla kon taggu ko ndax bi mu ko yenulee yenum yenum boobu ba pare gis nga nit ni mel ci suuf lu ne lu fi yàqu rek ñu di ko yàq te nee na moom moo yenu yen boobu aaya boobu ci bàllu tafsiru lugaw yi loolu lay firi kon yàlla mooy amaana bi nga xam ne dénk na ko nit mais li mu apprécié ci moom mooy nit daal vraiment tooñkat la réer la ku réer la ñu laaj nag seen tiyaan yi lan mooy amaana bi kóolute gi mooy mu ne al amaana hiya al qiyaam bi xuquqi martabati al xaq fi kulliyati maaniha xalqiya wa ilahiya yàlla bi mu bindee amaana boobu mu doon dénkaane muy dénkaane boobu mooy kan moo ko mën a représenté moom yàlla ci mboolem instance yi nga xam ne moom nekk na fa yàlla mboolem barab yi nga xam ne moom nekk na fa yàlla te am fa ay mbindeef kan moo ko fa mën a représenter moom yàlla matal ko comme moom bu fa nekkoon ni mu koy matale moo xam nag ci da koy matal ci wàllam maanaam moom lépp loo xam ne bu fa nekkoon dana ko def yow nga matal ko mais waxal xalqiya ak lépp loo xam ne doon na ko jëflante ak jaam yi yow nga jëflanteeg jaam yi loolu maanaam daal nga remplacer yàlla ci kaw suuf xam nga yéen bii diis na de moo tax seen tiyaan ne falam tutix xamla hadihi al amanati alsamawati ard gis nga moo tax asamaan daw suuf daw ndax yow ñoo xam ne yow xamoo yàlla sax li mu bind yëpp nu mu toll ñoom suuf ak asamaan ak montagne dañoo daw waaye wax xamalaha al insaan yàlla sant ko nit de daf ko koo yen dafa ne wa xamalaha al insaan yàlla yenn ko nit ñuy laaj ndax nit kii di nga gis muy football yi jëm terrain ba di football ndax kooku la yàlla yenn yenn bi seena siyaan ne déedéet huwal insaanul kaamil insaanul kaamil li ñuy tuddee l'homme parfait yàlla benn nit rek la bind tudde ko l'homme parfait mooy le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa kooku rek moo mat ci nit ñi waaye ba addunay tukki bi mu ñëwee ba addunay tukki dafa am ku ñuy wax saaxibul waqti mooy borom jamono ji borom jamono jooju mooy représenté yonent bi ci jamono ju ne kooku nag dañ koy jox ay pouvoir yi yu yonent bi amee woon ak kàttanam ba mu mën a attan yenn boobu xam nga ne nit kiy dox nii rek nga xam ne matul sax téeméeri kilo kooku xam nga bu ne lépp lay yenu asamaan ak suuf ak yi ci biir xam nga kooku attanul dara mais euh, yàlla yen na ko nit kooku nga xam ne mooy insaanul kaamil waaye doo gis rek kuy dem ci suuf nga naan man xalifatullah fil ardi la déedéet xalifa nga yàlla moo la def ci suuf nga nekk ci suuf waaye nag ki yenn yenu amaana bi moom lu kooku mënta doon ñëpp yàlla moom ab yenam benn pii rek la koy yen euh, kooku nag mooy insaanul kaamil Seydi Ahmad Tijaan nee na yaxfadu llahu bihi niwaamal kooku la yàllay ruuse ci waxin àdduna bi ci moom la yàllay maanaam doxalee respecté nizaamul wujud yi maanaam nosek mbindeef garab yi ci lañuy juddoo garab yi ci la ñuy màggee ndox yi ci la ñuy tawee nit ñi ci lañuy juddoo ñii dee ci la ñuy dee euh, tabaraka ñi am wërsëg ci lay am wërsëg ñi ñàkk ci lay ñàkk maanaam yooyu yàlla moo ko programmé mais mu koy teg ci loxo ki nga xam ne nii mooy saaxibul waqti moo fi wuutu yàlla di insaanul kaamil wa bihi ci barkeem yurhamu la lañuy yërëm jamial mawjuudi mbindeef yépp même sa ñaan sax boo tëju woon ñaan yàlla sa aajo ci barke kooku moo koy nangu pour mu dem wa bihi salaahu jamial wujuudi lépp loo xam ne luy baax la fii ci àdduna ba ci sa tool boo bay sax mu meññ yàlla mu ngi koy jaarale ci euh, kooku maanaam waxuma nag ne nit ki moo koy def déedéet yàlla lu muy def lu ne dafa am fu mu koy jaarale ci xikmaam léeg-léeg sax nga bëgg dara yónni benn xale ne demal ma ci boutique bi nga jëndal ma nàngam xaalis ba nga ko jox nit ki moomu ko loolu la jëndal itam moomu ko yàlla dafay yónnee nag dafay yónnee mais loolu ala sabilil xikma rek la ko waxee comme dars bi passé ci allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha noonu itam la def insaanul kaamil bi Cheikh Tijaan nee na wa huwa xayaatu jamii al wujud yi gis nga kooku di saaxibul waxti euh, euh, moom mooy maanaam moom mooy tax adduna bi di dund bu leen bloqué woon rek ñëpp arrêté ba bii qiyaamu jamiil wujudi lépp luy taxaw itam ci taxawaayu kooku lay taxawee ci baatin ba tax walaw zaala an il wujudi tarfata aynin waxidatin la saara al wujudu kulluhu adaman fi asrai min tarfati ayni gis nga kooku nga xam ne mooy yenu lépp lu yàlla bind te xikma yàlla mu yen ko ko muy amaana boobu gis nga kooku bu arrêté woon léegi léegi wala mu dee wala mu bàyyi mission àdduna bi ci boppam mooy tukki loolu wér na parce que yonte yàlla Moussa dafa am bés mu wax yàlla ne yàlla lu tax doo nelaw dégg naa ne doo nelaw ma bëggoon xam lu tax doo nelaw yàlla tontuwu ko nag nga xam ne ne mbiram ëpp na loolu muy tontu teg moom benn bés Euh, mu mel ni tey bu doon fàtte fàttelu yàlla da koo fàtte fàttelu hmm. ba benn bés nag mu mu ne Moussa dama bëggoon nga wutal ma benn leket nga def ci ndox demal ma ci montagne bële nga taxaw ba ca kaw montagne bi nga xaar ma foofu yónni yàlla musaa sawar ci lool ku yàlla yónni xam nga di nga bëgg jëm hmm. jël benn leket def ci ndox yéeg ak moom ba ci kaw montagne bi taxaw mu nekk ko nag jàpp ak sa ñaari loxo mu jàpp ak ñaari loxoom 10 heures suba. yàlla waxaatu ko dara nag mu yendu ci naaj bi suba ba ngoon yàlla wax ko dara di ko seetaan rek mu mu ba guddi gi dugg yàlla wax ko dara bi ñuy dem ba minuit di jot nag mu commencé jayaaxu taxawaay bi dafa yàgg commencé jayaaxu yàlla na patt rek wax ko dara ba yàgg rek mu ne tërëj ci nelaw gis ga daanu xam nga booy nelaw doo mën a téewati gi leket gi daanu toj ndox ma tuuru ndeysaan muy fëgg yére yi am déception trop ak kersa yàlla wax ko dara mu wàcc montagne bi xam naa doon uti beneen leket yàlla woolu ko ne waa yéen saa mu nekk Moussa mu ne mu nekk ana leket gi ma la dénkoon mu kaa ah, borom maa ngi jéggalu dama ko yoroon taxaw taxawaay bee yàgg ma nelaw rek ja mu daanu ba toj mu ne lool rek laa soxla woon da nga ma laaj man yàlla lu tax du ma nelaw dama lay seedal ne. man mi nga xam ne ma tee asamaan ak suuf ak li ci biir bu ma nelawoon léppay daanu loolu itam lay def nag ci ruuxu saaxibul waqti boobu nga xam ne moom nit la mais day nelaw mais jëmmam rek ay nelaw mais ruuxam nga xam ne moo yaru amaana bi du nelaw moo tax dara du daanu Seydi Ahmed Tidiane nag nee nag mu mel ni nag dañoo yéemu ci kooku mooy kan mu ne kooku la ñuy wax ci làmmiñ bi nit ñi miin mooy xutbul aqtab ñeneen di ko wax xutbu zaman moom la ñuy wax itam alfardul jaami wala alxawsul jaami noonu la ko nit ñi woowee mais ca yàlla kooku mooy insaanul kaamil kon bu yàlla ne wax xamalaha al insaan mu ngi yenn amaana bi nit al insaanul kaamil boobu la ñuy wax te kooku jamono ju ne benn nit rek lay doon hmm. euh, waaw léegi xam nga mel na ni kon seere siyaani tàgg na kooku nee na moom mooy insaanul kaamil nee na ak aqtab la waa lu tax yàlla tëje kon aaya bi ne innahu euh, kaana zaluman jahula xam nga loolu waa ji tooñkat pire la xam nga kilifa gu toll nii kenn du ko mën a niraleeg tooñkat jahulan nga ne ku réer la te fekk na euh, mission yàlla yëpp moom moo koy dox nga ne ku réer la seena tiyaan ne waaw li jur loolu moo di euh, maanaam ku ne xam na nguuru nguurug yàlla kenn xamul fu mu yem hmm? kenn xamul fu nguuru yàlla yem waaw léegi comme kenn xamu ko kon ku taxaw ne mooy insaanul kaamil war a nekk xalifa yàlla fépp fu nguuram nekk waaw kooku kooku mënul kooku dijul marine hmm? Hmm? xam nga loolu moom la ñuy wax dije marine maanaam mu ngi jéem loo xam ne nii daanaka mënu ko loolu mooy zalum bi waaye du caagino ay bakkaar mais ku tël ni yàlla li mu yilif yëpp nga bëgg na da koy yilif dëgg dëgg zalum nga ak zulmu nag bu ko arab tuddee rek mooy naqsu shay mooy wàññikunte ci dara maanaam loo mat mat mat mat loo bari bari lumière yow insaanul kaamel bi di nga mujj def itiraaf xam ne liñ la sant mënoo ko matal dëgg dëgg dëgg mat ndax yàlla la kenn xamul fu mu dale bay xam fu mu yem jëhulan Seydi Ahmed Tidiane nee yàlla tudde ko jëhul mooy xam-xamu yàlla ni mu toll ak ay mbindeefam nga bëgg ne yow kenn ku nekk yaay dox digganteem ak yàlla xam nga ne boo dëgërul woon fit doo def loolu kon bu dee ci insaanul kaamil bi ñaari tur yooyu taggale ci moom waaye bu dee kulul moom euh, moom du tagg ci moom ndax zulmu ak jëhlu moom ku ne xam ne ne tabaarakallahu man ta doon tagg yàlla ne walaa yuxituuna bihi man comme yàlla nee na kenn mënu koo peeg ci xam-xam kon insaanul kaamil bu bëggee ñëw peeg nag xam-xam boobu mu kulil jawaani bi kooku jëxlu faw na fala jëxul yem ndax yonent bi ëpp ñëpp xam-xam la yàlla wax ne ko qul rabbi zidni ilman yi del wax yàlla mu lay yokk xam-xam rek kooku nag wax dëgg yàlla bu dee moom mooy ñaan di yokk xam-xam masa keneen ku dul moom kon aljahlu alladi nusiba ilayhi wa nafyu lixaata bi kunhi jalaalihi wa dalika gaayatu almaarifa billah fa inna maarifatahu billah min waraai xutuuti dawaairi kulliha nee na kooku nag ñu insaanul kaamil boobu yàlla wax na jahul la dafa réer mais nee na réer googu mooy jëmmi maarifa dañu wax ne ñaari xam-xam maanaam ñaari réer benn bi ngëm piir la bi ci des weddi piir la man jahila billah fa huwa kaafir wa man jahila billah fa huwa aarif yàlla képp ku ko ñàkk xam maanaam ku ko réere ñu ne ko yàlla nga ne xaw ma yàlla ah yow gëmoo yàlla mu ne gëw ma yàlla réere googu nga réere yàlla ignorance boobu mooy kufru yéefar wala dëgg waaye itam bés bi nga commencé ne gëm nga yàlla noonu xam nga yàlla commencé jaamu yàlla di ko jaamu bés bu jot yàlla di la wan ci ay xadaraam dara di la wan di nga wal da mujjee di miir yow di miir di wëndeelu ndax xam-xam yu bari te kenn xamul nu mu toll benn bés man nga ci découvrir ay milliards yi xam-xam da ngay dem nag ba mel ni kuy wëndeelu xam nga koo gis muy def wëndeelu njaay njaay li muy def bu àggee fu mu jëm xam nga day daanu ci suuf léegi bu daanoo de foog ne àdduna bi tourné fekk àdduna bi moom mooy tourné nitu yàlla bu naanee ci leeru yàlla ba fees del day mujj di wëndeelu buñ ko laajee kan ndax xamoo xam xam nga yàlla mu ne noo xaw ma ko de mais xam nga ñaari xam-xam yi duñ benn ki yàlla te mu firi kufru mooy weddi ndax yàlla moo ne faalam annahu laa ilaha illa allah kon loolu ku ko xamul rek yéefal ngay doon waaye ki nga xam ne itam dem na ba seey ci biir yàlla ba gëstu ndax booy tàmbali da ngay commencé di comprendre na ah, dëgg la dëgg la waaye boo demee ba naan jib yi da ngay mujjee la nga njëkkoon a xam sax da fàtte bu ko defee kooku bu ñu naan xam nga yàlla nga ne noonu ba tey tur wi sax mosuma koo dégg ñu foog ne da nga ko weddi fekk na riir maanaam riir gi nga riir ci biir yàlla moo dem ba nga xam ne xamatoo looy wax di nga gis sax ay ñaari xarit kenn xewle ñu naan ndax kenn ki doo seede ci waa ji mu naan kii matuma ko seede parce que xaw ma lu may wax ci moom ndax maanaam dañoo yàgg miinante miinante ba boo doon wax sax doo xam looy wax arif billaa dina yàgg ci yàlla xam yàlla gëm yàlla ba nga xam ne boo nekk ku yàlla sax mu ne xaw ma léegi insaanul kaamil boobu nga xam ne moo yenu xam-xamu xilaafatu boobu mu ak amaanatu bi Cheikh Tiyaani nee na kooku bu yàlla ne innahu zaluman jahulan dafa réere dafa réere yàlla mooy dafa xam yàlla ba réer ci biir yàlla kon ndekete moom xam-xamam boobu mu xam maanaam réer googu mu réere yàlla mooy jëmmi xam-xam dëgg-dëgg ndax moom ni muy xamee yàlla bokkul ak cadre yi ko téere yi jàngale xam nga boo bëggee jàng tawxid da ngay dem ci ibnu ashir ma lay mel noonu jàngale tawxid euh, mais nit yàlla bi insaanul kaamil moom yamu xam ak li li nit ñuy wax sax dadul benn insaanul kaamil bu toogoon ci mbooloo ñuy waaraate moom day foog ne nit ñi ay xale yu fo la doon maanaam loolu ñuy wax ndax xam-xam yu bari yu mu am te sañu ko wax léegi kooku di waaraate ba nit ñi daanu leer di jooy mu foog ne mu ngi ci fekk na kii maanaam moom insaanu kaamil bi toog ci kanamam moom dafa jaaxle jaaxle ci li kii di wax moom mu foog ne sëriñ bi dafa yéemu fekk wax nu koy yéem parce que li ngay wax dafa mel ni waxi picc ci moom ndax moom xam-xam yi mu détenir xam ko euh, maîtriser ko ndax seen tiyaa nee na daayira ya muy yëngu maanaam dimension ak milieu ya muy dund ay yii nit ñi nekk du benn moo tax ñooñu ku leen fokk ci ci ngénte ñu toog wala nga fekk leen ci dëj wala takk danga nga leen mujj sa yërëm parce que ay nit lañu yu toog nii waaye ñooñu xalifa yàlla lañ ci kaw suuf moo tax ñëpp leen di jaaxal te kenn defu leen dara mais jaaxle googu loolu lay jur ci ñoom ndax mooy xam-xam bu rëy bi leen yàlla may nee na martaba rek ku ci dugg daanaka xeetu xaqaayiqu xam-xam yëpp dafay solu ci sa ruux rawatina kooku nga xam ne nag moom mooy xutbul aqtaab te mooy saaxibul waxti muy xutbu zaman bi nga xam ne nii moom moo amee amaana bi ci kaw suuf yeneen tiyaam nee na nag al insaanu al kaamil taxatta jamia addawairi wa wasala ila maarifa min al maarifati billah ila xaysu la ixaatata bi kuni jalaalihi wala xadda wala kayfa wala ayna wala rasma wala daaira fa huwa yajulu fi hada al baxri alladi la xadda lah walaw anna jamia almawjudati umiddat min hada albahr misxaala habatin la tahaddama alwujud bi asriha wa saara maxda aladam fi aqal min tarfati aynin lixtiraqihi min haybatillah nee na insaanul kaamil boobu nga xam ne yàlla moom la yenn amaana bi yàlla daf koy dépassé loo martaba siddiqiya nga xam ne arifuuna yépp fa lañ nekk ak waliyu yi nga xam ne mooy martaba bi gën a kawe Euh, nga xam ne Seydina Abubakar Siddiq fa la toogoon wali yu bari fa lañ toogoon mais comme insaanul kaamil moom yonent bi la wuutu dafay romb yooyu léegi nag dugg ci yeneen cadre yoo xam ne ci xeetu xam yàlla ak xeetu yëg yàlla maanaam moom sax bu bëggoon ñëw expliquer du xam lu muy wax moom mu xamee yàlla xamin goo xam ne xaminu originalité la maanaam digg dëgg jëmmi yàlla lay xam li nga doon wëre nit ci lëndëm di ko xool mu lay xool ci lëndëm gi gisoo ko mais yaa ngi dégg baatam nga nekk ko foo ne mu ne maa ngi toll fi maa ngi toll fi ngay toppa baat bi nag toppa baat bi ba téye xam nga boo ko téyewee nikk xam nga ne léegi daj nga ko ñoom insaanul kaamil moom bu fekkoon nit ñi dañu wër yàlla ñoom dañ koo téye téyewin koo xam ne loolu nag misaal la te alallahu an zalika ba nga xam ne ñoom ni nga xamee yàlla boo toogoon yow di wax ci yàlla ñoom dañu mujjee di laaj sax ndax ki xam ak ki ngay wax benn la ndax cadre bi ñu nekk rek te xamee fa yàlla ni mu sore ñoom nag yàlla jox leen ci ay xam-xam yoo xam ne amul limite wala kay fa kenn mënu ko kenn mënu wax ne nii la mel wala ay na kenn mënula la xam fekk xam-xam boobu ñu ne boo demee bibliothèque sàngam di ko fa fekk mbaa cadre sàngam bi nga ko fekk moom fa mu ne rek moo mën a xam loolu te moom mi ka nekk benn nit rek lay doon ci wujur bi wala rasma amul lenn lu ko mën a niru ñu naan de boo ko bindee niru nag loolu wala daayira amul benn xadara wala daayira boo xam ne niroo nag moom insaanul kaamil bi fa mu fa muy bëgg a wax ne mën naa bañ a déggoo kenn ndax koo xam ne li ngay li nga xam kenn xamu ko fi nga nekk kenn new ko kay yow kay yaay jéem a xool rek noo euh, mu daaranteeg nit ñi ñu ne tiyaan lu tax loolu mu ne parce que fa huwa yajulu fi hada al bahri alladi la hadda lahu yàlla da koo sóob ci géeju xam yàlla ak géeju yëg yàlla ak géeju sey ci yàlla ak dund ci yàlla ak dox ci yàlla ba nga xam ne moom xamul géej googu amul frontière xanaa xamoo ba tey jii rek yonent bi mu ngi découvrir ay xam-xam yu bees yu mu xamul woon démb waa gannaaw yonent bi mooy découvrir xam-xam yu bees yu mu xamul woon démb yow mi ne taalibeem nga fa fan nga jëm yow moo tax njàng mu dul jeex la dox bu dul jeex Euh, xam gu dul jeex moo tax mu ne walaw anna jamia al mawjudat umiddat min hada al bahri misqaala habatin la tahaddama al wujud bi asriha wa saara mahdal adam gis nga insaanul kaamil donn gi mu donn yonent bi ak leer gi yonent bi tëbb ci ruuxam tax na mu ngi ci géeju xam-xam ak géeju leer goo xam ne adduna bi yëpp ku dul moom ku dul moom adduna bi yëpp bu ñu leen tegoon nii ñu sàppe ñoom ñëpp ñu taxaw ñu jël lu toll ni benn toxu ndox jële ko ci géej googu insaanu kaamil di xëy ko gont ñu jël si lu toll ni benn pepp ndox ci leer yooyu sotti ko àdduna bi seena tiyaa nee na adduna bi yëpp sunguf la ñu doon yëppay sëy te adduna bi jullit yi laay wax de jullit yi jullit yeeg sëriñ seeg ila ilimaanu jàkk yeeg ustaas yeeg borom xam ñëpp daal ñëpp ñu ngi ci groupe boobu mais boo leen tegoon nii jël benn toxu ndox ci leer gi nga xam ne insaanul kaamil fa lay xuus di fa xam yàlla di fa dund ci yàlla di fa dox ci yàlla nga jël toqu ndox boobu sànni ko ñi ñëppay doon poussière sunguf moo leen gën a nooy nee na loolu loolu kañ lay amee mu ne non bi asra'i min tarfatil ayni maanaam lu toll ni benn seconde ci la ñuy ñoom ñëpp ñu ne lu tax cheikh ñuy seey mu ne lixtiraaqi yi min haybatil jalal ngir dañuy lakk ci leeru yàlla googu ak xam-xam yooyu te géej googu muy wax ne insaanul kaamil ca la ne loolu du yàlla de géeju leeru yàlla rek la ak xam-xam yi yàlla dencal insaanul kaamil moom ci lay dund waa man kon yàlla moom ku fa yegg nooy def maanaam géeju leeram rek moom mooy seeyal ay jëmm kon massa jëmm yàlla subhanahu wa moo tax mu ne kon insaanul kaamil moom mooy kenn ki nga xam ne nii euh, dëgg dëgg dëgg daal jaru la nirool jaru la nirool parce que doo mel ni moom doo tolloog moom doo xam li mu xam ndax yàlla moom la sédd boobu cër fa laysa yutiqu alqiyaamu bi hadi fi hadihi almartabati wa ictaai jamii tajalliyatiha xaqaha illa alfardu aljaamiu almuabbar anhu bi lisaani alaamati bi qutbi alaqtaab Sidi Ahmed Tidiane nag nee na kooku moom la ñuy wax nag ci làmmeñu àdduna bi ne moom mooy xutbul aktar euh, nga xam ne wax nañ ne géeju leeram maanaam bu ci yàlla jëloon benn toq rek lu tolloog ki ñax li génn ci kanamam noonu muy benn toq ñu sotti ko àdduna bi yëpp ci jullit yi seen tiyaaneen dañ seey ci benn waxtu kooku rek moo mën a xuus ci géej googu di fa xëy di fa gontu xam nga kii buñ nekkoon donn na yàlla dinañ ko neex dina neex a gëm waaye nit ku feddi géew rek taxaw fii naan may xalifa yàlla ci kaw suuf doo xalifa dara yow xalifa yàlla boo xam ci fay dëkk fay julli nga dëkk boru koor yoo fayagul yow xam nga ne yow yow doo xalifa kenn xutbul aktab bi nga xam ne nii mooy insaanul kaamil Seydi Ahmad Tijaan nee na géejam rek damuy xëy fa gontu fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin euh, buñ jëloon benn toq bi séddale ko àdduna ñëpp sëy euh, jamono jii nag neex na neex goo xam ne da ngay gis ku toog naan man maa ko bu zaman te moom xam na ne gis xamul géej gi moom xuusul xamul dara day nelaw ci lalam yeewu yow xam nga boo ko gëmloo nit ñi tam yow xam nga ne ndax loolu moom fonction la seen tiyaan ne nag kooku nag bi insaanul kaamil moom la ñuy wax xutbul aqtab maanaam xutbu luga arabiya mooy firi njobbaxtalu lu mu mën a doon euh, mooy zirwatu kulli shay'in mu ngi mel ni jàkk sax dafay am xubba xubba la ca bopp ba muy minaare loolu lañuy ñuy tudd alxutbu ngi da ngay nit dana solu ba àggal jël benn mbaxane nag kubba ci teg ko ci kaw boppam arab nag li tax mu koy tuddee mm, maanaam nit mooy kawe gi muy kawe moom mbindeef yi te damay wax ne nit lu muy njool njool njool mbaxanem surtout mbaxanem xam nga gisagoo kenn di tëlanteeg bopp mbaxanem mbaxane nag ni muy suutee sa jëmm noonu la xuddu boobu di sutee maanaam gox ba mu nekk yëpp ak mbindeef kii nag lu tax ñu tudde ko xutbul aftab mooy nit yàlla bi jaamu yàlla ba yëgg ci martaba xutbaan ya ak cër bu mu mën a am bu xutbu bii ñëwee mooy seen patron ñoom maanaam moom mooy xutbu xutbu yi te jaamu yàlla rek ba doon xutbu coono bu rëy ci ne rawatina nag kii doon xutbu al aktar mu mel ni rek yonent bi mooy nabiyul anbiya maanaam yonent yëpp ay yonent lañ waaye dafa fekk yonent bi moo fa newul woon bi yonent bi ñëwee nag ñoom ñëpp ay taabia rek lañ mooy ay taalibeem lañ noonu la xutbul aqtaab mel nga xam ne cëram kenn xamul nu mu toll ku dul yàlla seena tiyaan nee na pour dëggal loolu ma la wax ne mooy insaanul kaamil xamoo ne walaw jamaata ibadatal alamin jamaa alamin li man sa il alam ila nafxi fi suur ma aadalat min ibadati qutbil aqtaabi fi hadihi al martaba miqdaara tarfata aynin min umrihi xam nga kéemaan insaanul kaamil boobu yàlla jox amaana bi te di ko tudd ci suuratul ahzab seena nee na boo dajale woon ñu mën a jaamu yàlla yépp ba àdduna sosoon ak laax ba àddunay tukki képp kuy jullit rek ñi seen jaamu yàlla maase ak ñi maasewul nga dajale leen bi àdduna tàmbalee laax ba àddunay tukki génn ci yenent yi ñoom seen jaamu yàlla googu li muy rëy rëy tolloowul ak ñaari rakk yu xutbul asab def jaamu xam nga ni ngëneel yàlla la innal fadla bi yadillah ñooñ nag ku leen xam ne da bëgg a njëkkanteeg ñoom liggéey dangay daanu rek dangay daanu rek te loolu moom la Cheikh El Hadj Malick radiyallahu daan wax naan góor ga da nga ko mën dafa julli geewee dem moom guddi gi nee na ñaari rakk la daan def ñaari rakk yi day kaamil la ciy wàcc fatiha lay def alif la alif lam mim dalikal kitaabu ba jeexitalu um, uh, kaf fi mu daaneel maanaam mu rukkoo sujjóot jugaat taxaw fatiha dale Maryam ba minal jinnati wan naasi sëlmal def ay dogam dem jàkk ji góor gi nag séen ko rek alaaj maay kàbbar mu mu topp ci gannaaw ne day barkeelu ci julli góor bi mais taxaw naa taxaw ba xam ne jaadootul mu bëgg a dagg julli gi nag mu tëkku mu nekk fa xam nga julli koo xam ne minuit lañ kàbbar wala boog vingt trois heures lañ kàbbar jëm deux heures du matin xam nga boobu taxawaay ku ko taxaw tey doo ko taxaw suba góor gi di taxaw di taxaw ba xam ne jaadootul mais nee na mu ngi gis góor gi rek Seydi Haj Maalik gi tari moom daal nee muñ na muñ na muñ na sax ba góor gi rukkoo mais bu mu rukkoowee su jot lu yàgg yàgg yàgg yàgg di siggiwaat nee na dafa toog nag xam nga toog dagan mais toogaay bi sax du neex parce que foofu lay mujj a yàqoo ndax toogaay boo am guddi gi yëpp lay jël euh, guddi googu daal yàgg na trop ci moom bi mu sëlmalee mu gis góor gi dem jàkk ja mu naan ndax kii nit la ndax lii ku ko def da waroon jekki-jekki rek tëdd mu topp ko mu dem jàkk ja ñu julli mu toggaat lal maan ñu wësul après mu lal perse bi nit ñuy jàng waa ji nag xam naa dafa dem nelaw ji ba nekk nit soog a ñëw nag nuyu Seydi Hadj Maay ne ka biig de jaaxle naa mu ne ah mu ne dama la doon dama la doon roy ci julli gi waaye mu jënaa sonn de Seydi Hadj Maay ne ko da ko man da ko man yow koo xam ne bu taxawee ñaari tànkam mu ngi taxta sara bopp bopp bi mu nga foqal euh, taxtal arshi kooku boobu taxawaay da nga koo man mu ne ko si loolu kay musuma ngaa dégg sax ba koy man kooku mooy xudbul abtar maanaam ñoom buñ taxawee rek seen tànk juróom-ñaari suuf lay laal seen bopp mu nga ci asamaan te benn jëmmalañ kon kooku buñ naan mooy insaanul kaamil nit ku mat kon da ngay gis ne ulama tasawuf nee na nit koo gis muy dem shibhul insaan rek la dafa niroog nit rek ci jëmm waaye am na bopp ami loxo am tànk moo tax léeg-léeg nga gis kuy dóor dëndam naan man nit njaay laa déedéet doo nit njaay doo nit jóg sibul insaan rek nga kuy niroog nit waaye nit dëgg mooy insaanul kaamil te jamono ju ne benn nit lay doon yàlla yàlla dogal ñu sopp leen man nag li ma jaaxal mooy sëriñ bi jàngale xam-xam bu rëy bi moom lan la xam ci li mu jàngale moom eh, xoolal li yàlla doxal dogal sëriñ dafa mën a nëbbu lool te ku ne xam na ne martaba xutbaaniya bii nii nga xam ne mooy xutbul jaamia mooy alfard dafa am bu ko gën a kawe mooy ki nga xam ne moo leen di tabb xanaa kooku moo gën a rëy ah? ki nga xam ne yow moo la fal pour nga doon loolu moom Seydi Ahmed Tidiane au delà de martaba xutba xutbaani bi ci la toogoon mais ba àdduna sosoo ba ba àdduna tukki ñii muy wax ne seen ñaari rakk tolloo tolloowul ak jaamu yàlla mbindeef yépp maa ngi lay yëgal ne ba adduna tukki nag ku ciy toog moom Seydi Ahmed Tidiane moo la koy fal moom xanaa moom kon moom moo gën a yëngu ñëpp ah moom moo wax ne dufeetu ila alxadrati al ilahiya dufatan waxida wa saara awali axiri wa axiri awali wa kulli juzi wa juzi kulli fa xiina idin falaw suiltu an alfi alfi masalatin la jabtu anha bi kalimatin waxida fa sirtu kal misbaax loolu moom bi muy wax loolu martaba xutbaaniya la toogoon kon li mu yéemee moom seen tiyaan yi mooy wa fi lmuharrami gada gawsan rachid xalifatan an ilmuhaymin ila machid euh, utiya daka cheikhuna bi arafa xakaahu man xaqaqahu wa arrafa loolu la rawe nit ñi ak wa baada chahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi alazizi almuntaqa maqaamihi almaktumi an kulli alwara siwa annabi ma waraahu wara moom Seydi Ahmed Tidiane dañu wax ne bi mu amee adadu wëli muy quarante six ans la jot tariqa bi bi mu amee cinquante cinquante ans la jot martaba qutbaaniya bi bi mu amee soixante trois ans la jot martaba xatmiya xatmiya nag mooy bii may wax mooy non seulement yow xutbu zaman nga wala boog xutbul aqtab nga wala boog fardul jaami nga wala xawsul akbar nga wala yow yaay insaanul kaamil mais bi nga doonee lool ba pare yàlla da ko tegaalaat beneen cër mooy ba addunay tukki ku ko mas a doon moom Cheikh Tidiane moo la koy signal xanaa kon yemantu la kay lu dul moo tax boo ko tuddee xutbul aktaab itam wala insaanul kaamil da nga jox yoon cëram rek waaye wax digg yàlla mu ngi mel ni yonent yi nga nirale leen ak nirale leen ak yonent yàlla Muhammad ñoo bokk tur bi waaye képp ku doon yonent yonent yàlla Muhammad moo la ko def kon képp ku doon insaanul kaamil Sidi Ahmed Tijaani moo ko signé kon kii defe naa buy waxtaane ci aaya bi euh, lu mu xam la du dëgg beneen bi benn aaya bi ñu ko laaj fa la ñuy daanele dars bi mooy wa saaltuhu radiallahu anhu an qawlihi taala yamxu llahu ma yasha wa yusabit wa indahu ilmu lkitab wa indahu ummu lkitab fa ajaaba radiallahu anhu bi qawli قال اعلم أن معنى الآية على طريق التأويل أن ذلك في أفعال المختارين فيما تتعلق به أغراضهم مما يريدون نفيه أو إثباته أو نفعه أو إضراره كل ذلك يمحو الله منه ما يشاء فلا يقع شيء منه في الوجود مما تعلقت به أغراضهم أغراضهم ويثبت منه ما يشاء ويظهر وجوده أو نفيه مرسوما في لوح لوح الظهور فهذا هو المحو والإثبات وأما ما تعلقت به إرادته فكله ثابت لا محو فيه ومن بعض معانيها ارتسمت المقادير الإلهية في اللوح المحفوظ فكان منها ما محاه بعدما أظهر رسمه لكونه متوقفا على سبب أو زوال مانع ومنها من ما أثبته وأظهره في لوح الوجود لكونه نفذ به حكم مشيئته والأول لم ينفذ به حكم المشيئة ثم اللوح المحفوظ منقسم إلى ما هو أم الكتاب وكل ما هو فيه واقع ثابت لا يمكن تحوله وإلى ألواح المحو والإثبات من غير أم الكتاب وفيها ما كان مطابقا للمشيئة الإلهية كان ثابتا لا محو فيه ومنها ما لم يطابق المشيئة الإلهية wa innama azharahu subhanahu wa taala fi lawx almahfuz mawqufan ala chartin aw sababin min xaytu lahu chartuhu aw sababuhu lam yaqa minhu shay wa huwa lam yaqa fi xukmi almashiati wa min bacdi macaani alaya ala tariqi altawili aydan yamxu yamxu allahu ma yashaau min acmaali almukallafin ma kaana xasanan axbatahu wa abtalahu wa ma kaana sayi'an gafarahu wa maxaahu wa yusbitu fi hadihi al af'al ma kaana minha xasanan asbatahu wa asaaba alayhi isaabatan tamma wa ma kaana sayyi'an asbatahu wa aaqaba alayhi uqubatan tamma fa fihi yamxu llahu ma yashaa wa yasbut wa yusbit intaha ma amlaahu alayna min xawdihi wa lafdihi yàlla dafa wax ci alquran ci suuratu raadi aaya 39 ne man yàlla man may dogal lu ma neex may dogal lu ma neex wéyal ko mu am ci jaam waaye itam man may effacer itam lu ma neex maanaam yàlla ndekete kon dina dogal dara dem ba ci biir mu effacer ko indiwaat leneen loolu nag dina wuuteeg la nga déggoon nga yow li nga déggoon mooy yàlla lépp lu mu dogal rek loolay am waaye li mu bëggoon a dogal effacé ka bindaat leneen loolu itam moo ko dogal xam nga loolu moo ko dogal ñooñu nag la ñu tuddee alwaaxul lawxi wal isbaat yàlla danay bëgg def dara jiw de bu amee fanweeri at dina dee loolu la yàllay programme nit kooku nag am na yeneen sabab yoo xam ne bu ci góor góorgóorloo di ko defakat di defar day gudd fan doo dégg ñaan kuy jokk sa mbokk dangay gudd fan kuy joxe alal te yàlla tax di dimbali fuqaraay da ngay gudd fan kuy joxe lekk da gudd fan loolu du dogalu yàlla xam nga yàlla moo dogal ne kuy def yooyu dangay gudd fan léegi kii waroon a dundee buy def yooyu du dund léegi is euh, lawxul max max wi wal isbaat ñooy ñëw euh, bu ko defee ñu bindal ko mu am soixante-dix ans ba quatre-vingts ans fekk trente ans la waroon a dund mais dafa jëf-jëf yoo xam ne day guddal fan beneen bu ñaareel bi mooy koo xam ne war naa mën a dund euh, trente waaye war naa mën a dund quatre-vingts ans muy def nag fu mu gis mag saaga ko fu mu gis mag toroxal ku mu gis mbéj borom xam-xam bu mu gis dóor xam nga kii du gudd fan ñëpp xam nañ ne xale buy toroxal mag doo gudd fan bu ko defee dig bu njëkk bi rek la ñuy jël rek nga déverner mu jeex yooyu moo tudda lawxul maxwi wal isbaat moo tax yàlla ne yamxu llahu yàlla dina far maa yasha lu ko sopp wa yuthbit mu maanaam mu dëkkal ay maa yasha wa indahu ndax nekk na fi moom um-, umul kitaab aaya bi loolu lay firi léegi nag dañoo laaj suñu sëriñ Mawlaana Seydi Ahmad Tijaani taawilu aaya boobu mu ne na xam ne jëf yi nga xam ne yàlla moo koy taamu di ko def ci ay mbindeefam mu moo maanaam dogal ko yàlla lépp lu mu dogal loolu du daj moo xam luy jariñ la walla luy loraate yàlla lépp lu mu dogal rekk loolu du dañ nee na nag dafa am ñaari façon dogal yu muy dogal dafa am lu mu bind ci lawxul maxfuus lawxul mahfuuz lu lépp lu war a am li mu ci war a dogal ak yi nga xam ne mën nañ koo changer yépp foofu lañ ko bind waaye yàlla dafa denc beneen alwa boo xam ne ci waxin ci xam-xamu boppam la kooku nag mooy coobareem coobareem googu kenn mënta fa fexe ba mu daj mu ngi mel ni rek ba baket bu ñam dundal dina ñam dee xam nga yow di dégg ko kenn ku ñaan lu fii ne ñaanal ma yàlla bu ma dee yow kenn du ko ñaan ndax du am yow kay ñaanal ñaanal ma gudd fan ñaanal ma ma wér mais de du ma dee moom ndax yàlla moo ne kullu shay'in haalikun illaa wajhahu loolu nag maanaam law yooyu nga xam ne moo tudda umul kitaab loolu moo tudda umul kitaab ndax yàlla ne moo ne wax yamhullaahu maa yashaa wa yusbit ba pare nag wax indahu nekk na nag ci man umul kitaab ndayu téere gi nga am loolu lu ma fa xës bind du daj amul ñaan amul jokko mbokko mas ngaa gis kuy saraxe pour bañ a dee dee gudd fan rek waaye dangay ngay dee nag gis nga ba tàyyi ku jox ko mbokk ay mbokkam daje fa ci dëjëm naan ndeysaan ku bëggoon mbokk la kon dee na mën na guddal fan nag waaye du la tere dee loolu umul kitaab la ko yàlla programme kon lépp loo xam ne nii yàlla da koo def ci umul kitaab seen tiyaa nee na loolu par force day am yi nga xam ne nag da koo def ci lawxul zuhur muy lawxul maxfuus nga xam yooyu lañ def yi mën a far ak yi mën a euh, maanaam sax xam nga président de la république boo ko faloon mu jox la benn kii ne la sama màndaa yëpp lii laa ci bëgg a def damay laaj ndax biir mandat bi du am yu mu mën yoo xam ne du ko mën a def ah boo ko waxee mu ne ah nit nag sa yéene rek nga am mais mënul nekk am na ci yoo xam ne itam dina ko ndab ci mandat bi xam nga ki ñu fal ñu jékki-jékki benn mbas am ci àdduna bi bokkoon na ci lim programme pour def ah est que da toog rek ne non lii sama yoon nekku ci parce que bokkul woon sama programme bokkul woon sama cahier de charge kon ñu wàcc la loolu bëgg yàlla noonu la def lawhul mahfuz dafa dogal yoo xam ne nii mën naa ne ak yoo xam ne jamono mën naa dogal mu bañ a ne yëpp nag lañ fa def léegi nag lépp lu mu dogal muy lu mu war a e-, e-, e-, effacer loolu pas-pasu nit ki mën naa tax masalan ku bind ku def bàkkaar ku ne ñu bind la bi boobu ñu ko lawhul mahfuz waaye boo jéggaloo yàlla nuñ koy def dañ koy effacé kon bàkkaar bi dogal la woon waaye jéggalu gi dem dogal la jéggalu gi moo effacé lële am na nag yoo xam ne dafa dëgër dëgër ba dara du ko fa jëlee mooy coobare yàlla yi mu bëggal boppam te mooy firawna wa inna firawna la min innahu min al musrifin xam nga julli ci Sénégal yëpp ak àdduna bu ko naafile woon safara la jëm loolu yàlla moo dogal ne Firawna safara la jëm moo tax keroog bi mu waree dee muy jéem naan amantu billazi amanat bihi banu is xam nga wax dafa gudd voilà nee na muslim amantu billazi amanat bihi te xam nga lan la waroon wax laa ilaha illallah rek mais lu ne dugg ci ba faf dee te jotul wax baat bi parce que yàlla moo dogalul ci coobare mu war a gëm parce que bu gëmee àjjana la war a dem te Firawna dafa bokk ci liste bi nga xam ne ñoo war a dem safara bu ci doon numéro deux di trois wala quatre ndax Iblis mooy kilifa ga Firawna euh, Masiixu Dajjaal ci topp Firawna moom dafa am troisième ak Qaaruuna soog a ñëw du dëgg euh, kon nga gis ne euh, loolu mooy coobare yàlla subhanahu wa ci dogal yooyu xam naa Seydi Ahmed Tidiane bari na xam-xam da yii xam-xam wax yàlla kiimaan la lii nag dana dimbali nit ndax benn contradictoire tanaqud dafa am ci dara mooy yow xam nga kiñ ne la inna laa yafalu maa yuriid yaxkum maa yashaa ba pare ñu ñaanal yàlla ah si ñaanal yow kay nga ñaanal comme yow li ñu war a ñaan yëpp yàlla dogal na ko pare xam nga di ne ñaan gi kay jaratu ko ñaan gi jaratu ko fekk déedéet alwaaxul maxwu wal isbaat la ñaan gi jariñ maanaam yàlla bu dogalee ci sa dund yoo xam ne xëy na gënalu la léegi ñaan yooyu ngay ñaan mën naa dem def leer dem ba raxas loolu ba mu set wicc moo tax ku ne la dem naa ci sama sëriñ wala nitu yàlla sàngam mu ñaanal na ci nangam ma am ko loolu kéemaan doon naa dund ba dee duma ko am nga naan ñi dañoo bari caaxaan ah yàlla mooy dogal ah yàllaay dogal mais yam allah ma looloo tax alwaaxul maxi wal isbat yi yàlla dafa dogal yu bari ba pare bàyyi yo bàyyi nag ay mbir ay point fidd yoo xam ne ku def lii am lii ku bàyyi lii am euh, def euh, am ñàkk lii loolu moo tax d'ailleurs buntu ñaan ci maxu wal isbat rek la nga fa mën a dugg moo tax Seydi Ahmad Tiyaani ci tënk ne inna lawxul mahfuz munqasimun ila ma huwa umul kitab wa ma huwa fihi waaqiun zabitun la la yumkinu taxawuluhu kon lawxul mahfuz bu doon alwa dafa am ñaari côté te defe naa alwa yi noonu lay demee alwa ñaari côté lay am nee benn bi mu ngi tudd umul kitab mooy bi nga am ne ci waxin dafa féete ak yàlla yàlla rek mooy xam la ne ak ñu néew ci ay mbindeefam mooy ñi gën a jege yàlla beneen côté bi féeteeg asamaan yi nag nga xam ne euh, daanaka kilifa yi am yi am leer ba man faa dem yëpp loolu rek la ñuy gis moo tax nag gis naa lawxul mahfuz rek tax ngay wër di wax ay secret dalay weddi de ndax dalay weddi ndax bi féeteeg mbindeef yi mahwu daf faa am isbaat daf faa am mën nga fa gis dara avant ngay ñëw di ko nettali si fekk changé nañ ko ko xam nga di nga rus torop toog rek naan ginnaaw suba dina taw maa ko gis lawhul mahfuz nga nettali ko ba télé yëpp jël kaak rajo yi wax nga dëgg mais dañ ko changé yooyu moo tax moom daal ku yàlla may daal boo mënoon noppi boo ci amul ndigalu wax la noppi rek ndax nit yàlla yi bari nañ pexe torop booy woote dara ba dem ci télé rajo yi ne nangam gis naa ko ñu ne ah nga ngay jaay dara jënd maa dem ba lawxul mahfuz gi gis ko xam naa kenn du kenn maanaam kenn du la kenn gëmul ne foofu mën a safaa dem waaye même bu amee te keneen moom am pexe bu mu mën a demee foofu ba dindi la nga yow léegi la wax nii xam nga la wax wax mahfuz moom wax na dëgg yow mii yaa waxul dëgg yow ndax yaa nekk loo xam ne kenn santu la ko bu la ëpp doole jaarat ci gannaaw changé loolu ba leneen am te lawhul mahfuz dafa mel ni benn benn cassette buy daw rek lu jot rek la fa ne la fa jota ne loolay daw wala dëgg euh, bande boo xam ne day daw lu jot rek lañ fa jot a bind loolooy looloo fay daw léegi bu fekkee nag yow nga fekk fa dara ne nangam dina am feeg ñetti fan fekk bi mu defee benn fan lañ ko changé xam nga lañ changé moo fa mujjee loolay mujjee am nga naan ah mais man kenn waxuma woon lii kenn kenn laaju la ko woon moo tax moo tax yu mel noonu mat naa yar sa bopp moo tax Cheikh Tijaan ne fi féeteeg mbindeef yi kooku mën naa am luy soppiku ak euh, lu ñu fay far ak luñ fay euh, dëggal waaye li nga xam ne moo nekk ci umul kitaab loolu moom fa tabarakallahu du soppiku euh, du changé ndax loolu la yàlla wax naan bët mubaddila li kalimatillahi wala mbëddee kalimatillahi nag da ngay xaar ba xam kalimatillahi lan la te mooy alamul amri loolu moom wala yaxituuna bihi ilman loo ci xam rek keneen xam na euh, lu ko weesu kon fa tabarakallahu seen tiyaani nee na wa min baadi almaani al aya ala tawil aydan yamxu llahu ma yasha min amali almukallafin ma kaana xasanan axbatahu wa abtalahu wa ma kaana sayi'an xafarahu wa maxaahu wa yuthbitu fi hadhihi al af'al ma kaana minha hasanan athbatahu wa athaba alayhi ithabatan tamma wa ma kaana sayyi'an athbatahu wa aqaba alayhi uqubatan tamma fa huwa yamhu ma yasha wa yuthbit Seydi Ahmad Tijaani ci xam-xamam bu bari bàyyi na sax wàllu xayb ak lawhul mahfuz ak yooyu mais nee na booy xool rek ci sharia ci zahir nee na aay bi mën na firi leneen mooy yàlla nee na maay effacé lu ma soob di saxal lu ma sopp nee na boo ko xoolee ci jëfu jaam yi mbindeef yi am na ci ñoo xam ne nii ñu ngi la koy wax bi ñu jullee ba tey masuñu bi ñu juddoo ba tey masuñoo faat julli masuñoo faat waxtu euh, dañuy jokk seen mbokk di or weeru koor di def lu baax mais yàlla ni nga xam ne mooy maax yi yàlla ndekete far na yëpp yiw yëpp far na ko nga naan man du ma gaay du ma seen moroom maa leen raw wor naa ñaar fukki julli naa nangam aji naa nangami yoon fekk aj yooyu yëpp yàlla effacé na ko ak julli yeeg koor yi yow jëf nga jëf yi mais yàlla mi nga xam ne mooy musabbit wala musbit waaye mumxi moom dafa koo effacé ba pare mu ne woyu sabbit moom mooy saxal lu ko sob xoola prix bi rak loolu torop moo di bàkkaar boo ma sa def ba tey gomew ko waaw yow yaa ngi lim ay julli te julli yi kenn enregistré ci benn yaa ngi lim ay koor naan man lu ne def naa ko tabax naa jàkk te yooyu yëpp kenn enregistré ko bàkkaar yi nga bëgg a fàtte nag dara dara dara effacé wu ci léegi yow boo demee àjjana maanaam boo demee yowmal qiyaamati toobale yàlla bu buñ la attee foo jóg xam musiba am day am fa man xafat ma mawaazinuhu fa ulaayka muflihun wa man eh, fa man saqulat mawaazinuhu fa ulaayka hum wa la xaffat mawaazinuhu ulaa'ika allaziina xasiruu anfusahum bu fekkee loo mas a def ci lu baax kenn bindu yow amoo fa dara loo mas a def ci lu baax bon kaar bind nañ ko mu nga fa bees fekk ba tey xam nga boo fa demee di nga am problème damay wax ne daanu cardiaque bu doon am foofu ñu bari nañ daanu cardiaque waaye yaa gaan di fi kenn fi daanu cardiaque toogal rek nga déglu amul daanu leer amul xëm amul deewaat mi yooyu yëpp amul da ngay gis gàcce gi nii janoog moom doo mën a daanu xam nga fii koo fi wax gàcce wala kii dina daanu daanu nga xam ne sax amas yëg nag foofu nag amul daanu leer amul naan poson amul dee ndax dee nga ba pare dee nga ba pare te yow ma xiyaamat yàlla dafay rey dee dee ci boppam day dee bu dee deewee nag xam nga doo mën a deewee léegi nag ñooy wan gàcce yi benn par benn benn par benn nga bëgg a dee te doo mën a dee maa ngi bëgg a wax ne Cheikh Tijaan li mu bëgg a jàngale fii mooy nit warul naw boppam parce que yëf jëf yu baax yii ngay naw yàlla bindagul a leetar ne la nangu na ko am na nag ñu ko yàlla may waaye dama la bëgg a wax rek ci jàngale ne du ñëpp jëf yu bon yii nga jéggalu woon yàlla naan astafirullah astafirullah foog ne yàlla jéggal na la fa am na yoo xam ba tey ñu ngi fi toog di la xool di la xaar nag foofu ci yëgagoo ko ci effacé nag. taar jëf yu baax yële nga nawoon ba pare saxal jëf yu jëf yu maanaam safaanu yii mat naa ragal wa indahu umul kitaab li muy firi mooy nag léegi ñu ngi la tegal téere boobu foofu dara soppeeku ko boo ñëwee ñu ne ah yow am mosoo am yiw oh dara ci yàlla musal looloo tax nit daal loo baax baax sax mbaax bàyyil nit ñi gis ko te yow nga bañ kaa gis loolu moo koy jur parce que booy booy faral di baax di limal yàlla mbaax mbaax yi nga ko defal maa la naafilal maa la jullit bu yàggee yàlla day jàpp ne commerçant buy réglé la nga doxal maa ngi xaar ba nga man maa indil dara dinañ la fi nattoo nga def ay jëf wala wax fi ay wax yoo xam ne dafay effacer la nga jëkkoon a def te sëriñ bi jàngale na ko ci dars yi ci gannaaw xamoo ne am na jëf yoo xam ne boo jaamu woon yàlla fanweeri at am na yenn jëf yoo xam ne boo ko defee benn yoon loo mas a def effacé ko bokk na ci julli tàkkusaan jot amoo ngante nelawoo seeda tiyaani nee na nga toog bañ julli timis te dara dara dara du sa ngante nelawoo fàttewoo loo mas a defal yàlla ci yiw yàlla effacé na loo mu mën a toll eh, da ngay gis kuy ñi boole timis tàkkusaan ak timis te xamul lu toll te Cheikh nee na boo jaamoon yàlla si giiru dund kaar faat tàkkusaan te benn ngant taxul ndax dañ koo jiiñ salaatul wusta loo ma sa def dafa yàq bokk na ci karam yi hii bil muhsanaat yi fekk jigéen joo xam ne bokkuleen dara sequ leen dara nga naan kii day génn guddi di yàq deram xam nga yooyu xew na gën na yaatu sax parce que dañuy def vocal tudd nit ne maa ko bett fii mu def lii def lii nga nga dégg ne waaw saa li nga wax garaaw ne mu ne non dama ko bëgg a yàq rek maanaam kon moom moom ci boppam dina la xamal ne lii muy wax amul sax mais du dañuy xëppante asib rek bàyyi la ma xëpp ko asib bi mais xëpp asib boobu sa boppam nga ko xëpp Cheikh Tiyaan nee na nit boo ko xasee jiiñ génn guddi euh, wala jullit bu baax ku sell ku yiw nga jiiñ ko jëf ju bon ba ñëpp bàyyi ko Seexna Tiyaane loo mas a def ci yàlla loo mas a defal yàlla ci lu baax ci jaamu yàlla yàlla da koy gome ba mu set wicc wicc wicc bokk na ci mën na alal iyaal koo gis mu tiim ay ay doomam ak ay sëtam di leen ñaax naan yéen bu dul woon man ngeen dee maa leen di jox ngeen dund maa leen di jox ngeen naan maa leen di maa leen di maa leen yàlla nee teeyal dépense bii ma la jox nga koy nga koy jëndi jee ceeb ak diwlin di ko jox say doom est-ce yaa est fanaanoo woon nga ko est yaa liggéey xaalis bi wér gi nga demee ba liggéey bañ fay la lii est-ce que yow jàmm bi yaa ko yaa ko may sa bopp doom yi sax est-ce yaa ko may sa bopp kon boo toogee naan maa leen di dundal sama place nga bëgg a jël gis nga wax jooju tilim na tilim goo xam ne ñuul na ñuul goo xam ne dafay fekk sa ruux lépp lu fa nekkoon ci leer mu effacé ndax kufru la gën a jege Sidi Ahmad Tiyaan nee na bokk na ci riddatu mooy nit koo xam ne nekk na ci lislaam ba yàgg murtat tubbi génn ci diine ji dem xam nga nag baatu tubbi ak tuub am na bu gën a rafet de yow nit ñi tuub ngaan da ngay tubbi yàlla doyatu la dara doyatu la dara yàlla ci yàlla musal kon yamxullaahu maa yashaa daal wa yusbit wa indahu umul kitaab sëriñ bi nee na yaatu na torop torop torop torop boo ko firi woon léegi rek ci jamono ji ci société yi mooy kuy dunde riba xam nga kiy dunde riba commerçant bi nga xam ne nii day fekk luy jar téeméer mu jaare ko ñaay mu mu dem wuti ji ko indi ko foo xam ne xam na ne moom rek moo ko fa am ne daal ku bëgg jënd ñaari junni lay jar ku banul bàyyi man man man man jotewuma kenn dara damay jaay rek man ñaari junni laa koy jaay ku bëgg jënd ku ba ku ku bañ man kese ma dama xam nga nit ñi ñàkk pexe dina tax ñu ñu jënd loolu noonu nga amee mu ngi mel ni jamono yi fi ceeb ceeb ceeb ñàkkee njaayeen yi jënd ci prix bu ne njaayeen yi jënd nañu ceeb ci prix bu nekk ndax nit dafa mënta ñàkk ci fii ci réew mi gis nga loolu xam nga léegi yow commerçant bi def loolu ci benn weer bi xam nga mën na cee am xaalis lu tolloog ci xaalis li mu waroon am ci at mi xanaa kon njaay mi sakkan na waaye nag yëgul ne tondoos la yore dafa wata wata wata wat boo watul loolu mun am noonu naan dal naa ci bi ci dala si mukk na fa lay jaare li mu jotoon a am yàqu yàlla da koy bàyyi mu tekk ak bi yamxu llaahu maa yashaa mooy ñëw day ñëw rek bàyyi ko ba mu tëj butigam bàyyi fa léppam guddi gi mu yebal benn safara bu ne dur taal butig ba mu jël xanaa loolu ki doon jaay téeméer sax lay gën ah butig bi dara doo ko génne dara te xaalis bi nga nay woon yóbbu banque sax day lakk am na ñoo xam dañoo nay ne du wóorul mën nga ko yóbbu banque ñu lii bàyyi ko foofu nag ci boutique ba xaalis bi ci boppam da ñëw fekk bu doon poussière ñooñu noonu généralement dañuy dem ci bitik bi leen jege jënd fa bay boo naan ko ndax ñoom xam nga amatul seen bitig fekk na lañ jot a yor yëpp même bay boo bu ñu naan sax nekkatu fa léegi dañuy dem ci beneen bitig bi nekk jaay ma ba pare dugaat ci bitig bi ñaan waa ji duggoon na léegi day xaru xam nga kii alal barke bi yàlla da koo ni ba mu set wicc aay bi mooy def loolu manoon nga ko toppa nag ci mboolem jawaanibul xayaat dama la bëgg a wax ne yàlla képp ku ko ñeme di def lu la neex moom am na leer goo xam ne dafa mel ni tondos dalay fekk rek nel la benn nel na ba nga set huit ñu naan pourtant kii ni mu amee woon alal kii est-ce que tooñul wëli ma ne tooñ wëli bu ma nee yàq nit tooñ yàlla moom lu muy def bu ko defee yàlla yàlla defal ñu jàmm lii mooy ders bi sëriñ bi doon jàngale ku gis Cheikh na Tidiane xam ne fowul njab fowewul ay taalibeem xam-xam bi bari na leer na sa set na yal na yàlla fayal ñu ko hada huwa tawfiq min indi rabbi wassalaamu aleykum wa rahmatullah